bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal bokk yi nu xam ne koote gu nekk koote gu nekk am na ku nuy rendre compte ëllëg koote mooy kuréel bu ne am na koo xam ne bu ca kanamee tuuti ca kanam tuuti nag boo ko waxee ni mu defee ne suba rek la waaye soleetut fa sunu boroom innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba kuréel bu nekk ci koote yi am na mooy koote kuréel mooy koote am na ku muy rendre compte ëllëg rendre compte mooy dem leeralal ko ca lam doon dox ba mu ne moom la àndal su fekkee jullit yi la yàlla lañ àndal ëllëg mi ngi wax ne bu ëllëgee jullit yi dañ naan alhamdulilahi alladi adhaba anna alxazana inna rabbana la gafurun shakur ñi ngi sant yàlla bu baax mi ngi tàggale ak njàqare aku naqar ak tiitaange aku jaaxle ñun kat ndikite yoo lañ nekkoon nala fañ jëmoon fala ndax kii ni ko séqaloon kat xafurun shakur yal na nu ci yàlla boole waaye am na beneen côté boo xam ne seytaane lañ àndal moo ñi nga xam ne bu ëllëgee dañuy jàkkaarloog ñi gëmoon yàlla ci àdduna naan leen unzuruna naqtabis min nuurikum rikk waaye xool leen nu ndax seen leerug jëg yi wan nu fi ñuy jaar ëllëg fi ñuy jaar bu ñuy dem su ko defee ña ca tàng xol tàng xol mooy koo xam ne day def da ngay defee dañ lay ñaawal dund seen adduna ba mu jeex tàkk nam leen neexe ëllëg si biir ñaan la unzuruna naqtabis min nuurikum waaye qiila irji'u waraakum faltamisu nuura dem leen wuti ko suñ ko bëggee am mënutu leen ko am yal na yàlla musal ci boobu kuréel bokk yi nu ñëpp xam nañu ne adduna yàlla mi ko bind wàcce fi nit moo waxoon ne nit moom yàlla daf ko bind waajaale ci moom ngir muy jànkonte ak jafe-jafe adduna ak naqaram ak i mettitam laqad xalaqna al insana fi kabat kabat mooy waajalal nit ki ci jànkonte ak lu mu mën a doon dékku tàngoor dékku ab sedd ab sedd dékk dékku aw mar dékku ab xiif dékku lépp lu ñu koy teg tam di ko naqari loolu suñu dalee suñ jamono ci lu ñuy bañ na dana am lu ñuy bañ na du fi amee kuréel bu tuuti na dana am nañ xam ne noonu la yàlla bi na jamono waaye nag am na lu mas a xew loo xam ne yàlla waare woon na ca waaraate wu yéeme bokk aaye boobu ak la ca topp dafa amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku laajoon lu bari ne suñ suñ ko ko joxee moom dana gàllankoor yonent bi ak bu wooteem ak ñi mu àndal ñépp ña ko man ku ci nekk yëkkati lu am solo jox ko ko mu ne maa ngi dem moom mu ne mi ngi dem ci mission boobu muy doxali gaa yi ko jox alal gëmloo na leen ne leen man kenn ne moom kenn mënalu ko dara ñu ne ko ay ca demal mu del siwaat na leen la ngeen ma joxoon lépp lépp def naa ko ca la ngeen ma joxoon yàlla ne xanaa kooku daay defe ne moom yàlla gisu ko te nit ñi danañ ko gis ëllëg xanaa du yàlla mi ko jox ay gët jox ko làmmiñ wi nga xam ne ay tuñu ko umb wan ko yoon bu baax ak safaano bu baax mu tànn yoon wa ko neex yéen lay ñëw rek di leen jaaxal naan la ngeen ma joxoon joxe naa ko ndax bëgg lu leen neex waaye yàlla xam na lépp ayaxsibu an lan yaqdira alayhi ahadun yaqulu ahlaktu maalan lubadaa maal alal jooju nag nga xam ne lu ci way am da koy xeeb di xool la ca kanam lu ko gën a bari bokk yi moo dugal nit ci lu bari ayaxsabu an lam yarahu ahad xanaa kenn xanaa bis du ñëw ñu weer ko mu ne dang ñu ne kii moo doon xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak booteem di xeex jikko yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale mu bëgg a jëmbat yeneen jikko yu bokkut ak jikko yooyee yàlla nag laaj na ñooñu laaj boo xam ne bii kenn du ko mas a tontu alam najal lahu aydayni wa lisaanan wa shafatayn xanaa du yàlla moo la defal làmmiñ wi ngay waxe di bañ li yàlla digle xanaa du yàlla moo la jox gët yi ngay xoole kayit wi ñu ko bind ba mën koo layal xanaa du yàlla moo la jox xel moo koy ràbbe ak tànk yoo jóg di ko doxi bokk nag yoon woowu ku ci jaar nga xam ne saa su nekk dañuy limal yàlla njuumte yam juum yàlla nañu ci yàlla musal am na bis ñu taxaw fii ci réew mi ne yàlla daa juum ci leen li ne ci ne daa juum ci ne ku rey dañ ko war a rey jàllale wuñ ko ci lu gaaw ndax lan wut lu neex diw dong kese waaye bisa ngi ñëw du ma ne woon ci alquran ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqisaasu fi alqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab laalakum tattaquun ñu ne foofu dafay juum ndax xamul àqi nit te moom moo bind nit moo ko bind jox koy gët fi mu toll nii bokk yi ñi dàq ñi dàq wax dàq soow di sikkal yàlla ak ay atteem léeg-léeg wànnen ne tàpp nit ki ci benn bëtam muy bëgg a tuskare ku ko mën a fajal ab spécialiste dong la yaakaar ab ophtalmo buy faj bët ci réew sàngam mu paas lu bari ñàkk lu bari koo ko def yam ca fa mën a yam yëngale mbagg di ko xool léeg-léeg bëñam di metti noona léeg-léeg ay yaxam di ruux xoolu kay gënuñu xool ko ca duñ ci gis dara ñu mujj yëkkati ay wagg ne ko bay ba nga dem toog xaar yàlla rek yàlla man ci xaadu yàlla moom doon joxoñ démb bokk yi kooku day wane ne am na doole lu ko neex mu jàll lu ko neexut du jàll xanaa xamuñu ne fii ci àdduna am fi li nga bëgg lépp munta nekk gis nga bu fekkee alal la ko waral alal jooju am na ñu ko bari la lool te li gën a yomb nga xam ne jaboot sax buy génn ak doomam du ndaw da koy waajal am na ñoom jafe jigéen li muy waajal doomam buy génn mooy mu bañ a tur ndox ci sañse bi mu sañse moom wala sa mbooloo ma am na ñoo xam ne bala ñoo tur ndox ñàkk lu bari ci alal lu ci alal jaman xanaa su amatul alal day dee waaye gisatul alal ja di naan ndox di tur ndox ni mu yombe gone moom mu ne mu ne ko fàtt wéri di goo xam ne gi ku ne danañ ko ko tegtal lu ne dana ko naan ku ne dana ko seet moo tax alal kese kese du àdduna rek léeg-léeg nelaw tëggu ticc nelaw balaa nelaw naan doom yu dul jeex naan soro yu dul jeex nelaw tuuti yawwaat te bokk yi nelaw yoo xam ne da nga koy wër ba am ca neexatul tuddatul nelaw jëriñu tut aw yaram dara su fekkee ay demuwaay la mu rangale ci yu bari te kat daa jël avance te nee nañ ko jël avance waaw nga bëri jox leen ma alal ma def ma wéyal nangam ak nangam nar a attaqué attab yàlla su jotee alal ji du ko jariñoo nam ko bëgg a jariñoo mën naa am jafe-jafe digganteem ak soxnaam ñu yéeg ko wàcc mën naa am so diggante jafe-jafe ak doomam ñu yéeg ko wàcc ay fëgg doxkati guddi di ko fëgg mu dëkk tiitaange fu mu jëm day am ñu ko lox lekk ñu ko lekk ci peggam ponkal yoo xam ne yi dañ naan balaa dara agsi ci ñoom agsi ci moom ba mu des dee ñu koy wër lu ñu am am doole ak lu ñu met met bis bu dee di ñëw duñ ko teg bët ñaata ñoo toog ba yàgg rek ñu ne xëndëng lu alal jay jariñ moo tax ku bëgg noflaayub àdduna ba ca jiitu mooy gëm yàlla gëm yàlla ba ca gën a am doole mooy gëm dogalub yàlla dogalub yàlla nag ci atte yi la ko yàlla di jaarale atte yi daf caa bokk mu ne su ta jël lii bàyyi leen lii moom saa buñ ko waxee bu xoolee xool ña koy jox gisuñ ca benn sikk mu ne moom la ci ñun la bokk jullit yi la bokk waaye su laalee ñeneen nag mu daal di dëkk yàlla bëre te yàlla bokk yi bari nañu ko song waaye kenn musu koo daan nag noflaayu adduna ci gëm yàlla lay nekk mooy xel mu dal xel mu dal la koy maye mooy doylu di liggéey liggéey bu dagan te la la ci yàlla jox nga yam ca parce que yéenee jaamoo yàlla waaye su fekkee da nga bëgg ku gaare ay daamar yu dul jeex nga gën ko koo bari la gën ko koo rafetle ah neexum ngont nag xam fa ngay fanaa neexu gën lim nañ fii léegi loo xam ne lu lu yomba gis la ñaata nit ñoo am dooley jënd avion bu leen di yóbbu fa ñuy dem ñoom kenn di faju ji di faju ji avion boobu rek ñaata fajukaay la mënoon tabax di faj jaami yàlla yi di ci jaamu yàlla waaye xañaana na leen ko siide na leen ko moom moo ko bëgg ne fatix di lekk yàlla ne ko déedéet ku bëgg a lekk ndab li yow dong ak sa ñaari loxo di tibbe say tànk di dëtëm da ngay fot yaari weer yu nekk mu naawal fafal naaw googee dem faju ji dellu siwaat lañ koy faj ña koy faj xam nañu du wér waaye lim yor lañ soxla muy dem ak dikk ba yàgg ñu tàyyi xam ne lekk nañ ci moom lu mat capital ñu maandu ci moom mu dee deseeg yàlla te bokk yàlla nag dajeeg moom lu mat di waaj la ndax kuy dem moom dong ngay dem kepp loolu yomb naa xam gisaguñ fi koo xam ne dañ koo gasal nit bëgg ko ba ne nañ ko booleeg moom yóbbu du doomam du soxnaam du xaritam du ku mbokkaloon koote du kenn lañ ca man daal mooy ñëw taxaw fa muur ko aw sagar ca kawam aw sakkiit ku nekk wax lu rafet yàlla la ñuy wax lépp yàlla doon dëgg su fekkee ku mas a taxaw ne lii yàlla wax du fi amee buñ ko seeral mu ko ne ku gëmoon yàlla la te it ku jàng ku ko jàng alxuraan tooñ alxuraan nag ndax jote mooy jiitu joote ku ko jàng alxuraan tooñ nga alxuraan juróom-ñett yi nekk ci àdduna te ab jullit gëm ko moo tax jullit moom amul jafe-jafe ci àdduna lu yàlla tere da koy bàyyi su ko munta dindi mu naqarlu ko te jàpp ci gëm yàlla am juróom-ñett yi mooy yii mbégte jullit bi xam na ne su nekkee ci mbégte it mbégte mi du sax ndax min kulli shay'in xalaqna zawjayn njàqare ab jullit su nekkee ci njàqare day sant yàlla rawati nag mu bëgg loo xam ne munu koo am te ñekk ko xañ ay doomu aadama lañ ne moom waaye dana xam ne bis dana ñëw ñoom ñoo ñu tuxoo fa ñeneen wuut leen fa ñoo xam ne na ko jullit yi bëgg lañ koy defee waaye ndaje mu xumb it lu mu xumb xumb ak lu ñu la tàccu tàccu rik bu mu tax dëkk yàlla bëri soo demee ba ci géew ba yow dong lañ fay bàyyi defal néeg defal naa nee nañ yóbbante galgal ubut làmb te it la nit di naan di daan du ko naanee ci géew bi kon ki ñuy laxas muy dem moom moom na xam ne ndaje mu xumb bañ di la tàccu day taas ab juut gëm na ko bu yàgg moo tax mbooloo du ko taxa wax lu mu xamut wala mu def lu mu mënta def jéem a def ak tàggoo tàggoo koo bokkal koote loo ca am am ndombok tànk loo foor foor bis dina ñëw nga dem bàyyi ko fa wala koo ko dem bàyyi la fa wala ñu folli la nga mel ni ñëpp te su boobaa sa tur nga ca ne fang ca ne woon li yàlla tere dañ ko fiy def li yàlla tere dañ ko fiy def lim digal kenn du ko fi defee junj naa léegi yàlla xamul droit de l'homme ba tax mu ne ku rey nañ ko rey waaye nag fot du dalas gor kon tàggoo day am rek ci kanam tuuti kooka dem nga dem waaye jamono yoo xam ne lépp daa yomb lépp yomb ci yow ñëpp yomb ceew ko bëgg a gis gis ko foo bëgg a dem dem fa foo bëgg a dugg dugg fa diir bu gàtt lay doon mooy yusr ab jullit moom li muy gëm mooy li yàlla da ko ko abal rek jamonoy xat-xat lu mel ni yii ñu toll noona waaye ak wérit ab jullit du tax mu bajantu du tax mu cëpp cëppi waaye day xam ne min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn jëm waxu ci alxuraan du jaas kenn mënu koo jéggi wér goo gis ak wérit di mën na caa topp ak lu mu néew néew ab jullit day bàyyi xel loola moom moo tax xel mu dal tàmbalee fii jëm àllaaxira jullit dëgg dëgg dëgg moo koy am lu mu am ne yàllaa ko ko jox lu mu ñàkk ne yàllaa ko ko xañ waaye nag boole ko jéem a teg tànkam fi ko yàlla di teglu ndax kat nit ñi ki ñu xam mooy ku ne fang yor lu ne gàññ mooy taw buy yur yuri di sotti waaye mag nee na woon su ne wut xërsët rek yàq walla mu gaañ bokk yi jullit nañ muñ te kenn ku nekk téye pas-pasam ba dara bañ koo yàq ndax jullit yi gënoon nañoo néew jullit dëgg gënoon naa néew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jógee Makka di dem Madina kenn wala ñaar la àndal génn dëkk ba ci ndigalu suñu borom kooka di geesoo Abu Bakrin Siddiq léeg-léeg mu geesu ba xam ndab maa ngi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa tahzan laa tahzan inna allaha maana yii ñu def ndigal lañ ci am bul tiit bul jaaxle bul jàq ñun ñëpp jàng nañ ci téere yi taarix yi kawteef gi suñu borom def ba ba aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñi leen doon dab lañ dugg woon moo gën a gaaw ñoo gën a xam àll bi te ñoo gën a farlu ci lañ doon def ndax ñoom dañoo lekk avance bu jàmbur dañ ne jox leen ma nangam ma dabi ko indil leen ko. jox leen ma nangam ma sottal nangam nag yàlla nay jox leen ma ma liggéeyal yàlla ci yoonam wii rekk moo ca am bénéfice waaye kala ko jox ak yow ma koy jël ak yéene ji ngay am moytul dee fekk la ca de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ku dee rek li ñu njëkk àtte mooy lam nekkoon ba muy ba muy dee lu mu doonoon fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha mooy wan ko am xunti mu dugg fa am pitax ñëw rag tàgg ci bunt bi mel ni fii nit gëj na fa jaar ay at yàlla ngelaw tuuti tànk ya far ñu ñëw di xool te duñ gis dara xool xool taxut a gis xool taxut a gis gis yàlla koy wane mooy fi mu waxe ne ñi ñi bokk ak seytaane ab koote fa innaha la taxmal absaar dañuy xoolee nii neexub gis loo neex neexub xool kuñ xool xàmmee la di mën a jàng mbind mu sew lu mu sew sew waaye du taxul ñu gis dara gis moom mooy nga gis ne yàlla moom bu ëllëgee day atte ba loo dugg ci sa biir néeg lu mu tuuti tuuti bala nga ko bind wala bala nga ko gën ci sa làmmiñ nga xam ne nii nga koy waxee nit ñi di ko dégg bu ëllëgee da nga ko wax ñëpp dégg te di la gis gis bu gën a leer moo tax yàlla ne ku gëm yàlla teg yànga yàlla teg tànkam fu mu ko teg lu moo xam góor la wala jigéen la te fekk mi ngi ko teg ci pas-pas bu leer dana am tex ak adduna ak àllaaxira te bu ëllëgee lu mu defoon yàlla fulal ko ko affaire am baax man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kanu yaamaluun moo tax bokk yi am na ci ci jëmmi nit ñi ñoo xam ne duñu ay royukaay am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu tiitee fu ñu dem lañ fay wax lépp lu ñuy wax ba mu tàggal leen ak tiitaay nga jàng njàqare leen danañ ko fa wax mën nañ ko fa wax wàcce seen bopp ba wax ko fa waaye saa bu njàqare dañuy ñu mel ni xamatuñ ko waaye am na ci ñoo xam ne li tax duñu ay royukaay yi mooy saa bu alal génnee rek seen ngor jeex te suñ mag bi nee nañ ko woon diw dafa jaay ngoram mu ne amu da ko amutuñ koy xanaa waaye ngor kenn du ko am di ko jaay ngor mooy li li nit ki di te tekk digganteem ak boroomam xam ne yàlla ko jox ay gët moo ko jox ay nopp cër yi muy jëfandikoo yépp moo ko jox te daf koo abal bala moo tàmbalee rab bala mu fee jóge na fexe ba benn cër bañ a layoo ak moom waaye bokk yi gis ngeen jël bindukaay signé ñaata nit la signataire boobu sànq ñaata nit la signataire boobu sànq ay ati at ñu mujj ne ko xat defoo dara dañoo defee ne loolu day neen déedéet yàlla dara du ko raw lépp mi ngi ko bind mi ngi bind lépp waxtu wu nekk li kulli ajalin kitaab su ko defee kon jullit bi moom nooy féetewoo téye pas-pasam bu dëgër am na xew-xew jamono yu ko yëngal yoo xam ne day dem a dem ba bëgg a jóg waaye na dal te xam ne yàlla mi fi wàcce lislaam ba mu koy wàcce gënoon naa metti tase woon naag ñoo xam ne lañ sañoon kenn dutu ko sañ ci kaw suuf si lañ mënoon kenn dutu ko man mu fas yéene pas-pas boobu mu am ku ko mën a jot jot ca mu tàmbalee ko ci biiru njabootam fexe ba yar leen yarub diine ndax kat léegi teg la mag ñi doon bañ ñëw mag ñi am na njàng wuñ daan bañ woo xam ne tàmbali nañoo gis la muy wàññi koo xam ne boo ko ne yàlla mun a yàlla amul mën na ko bañ wax ci làmmiñam ndax kenn ñi mënu ko wax ci réew mi waaye dañ koy jëfee mooy tëb tëb dal ci alxuraan ñu ne alxuraan nee na mu ne ñu ne bu leen ñu waaru waay yonent sàngam nee na woon mu ne waay waay loolu weesu na nañ ñu wax ci li xew li xew moom mooy fekki alxuraan di ca àttew waaye alxuraan du ko fekki alxuraan jamono koy fekki di ko laaj nu muy def waaye alxuraan du ma sa laaj jamono nu muy def moom te kenn ku ko dund ku nekk mën na koo xam bokk yi ku kuy déglu kam war a déglu mu di ko digal di ko tere jaanam wàcc na xanaa kay ka muy toppi ëllëg mooy ka ko doon digale ko tere ba xam la mu ko doon digale ko tere lu mu doon diggante suñu borom ak moom yàlla noonu yàlla dimbale ba wan ba wan yoon wu jub ba te ñiy dëkk yàlla bëre ba lu mu wax ñu teggi wala ñu jéem a teggi lii benn xakim doon wax moo leen nar a dal nee nañ ku yàlla rëdd mu far mu rëddaat mu far mu rëddaat mu far yàlla dana rëdd ci kawam yàlla dana ko far moom rëdd ci kawam te kenn du ko mën a far bokk yi nañ fàttaliku ak pouvoir bu ñu mën a amee doole yu ñu mën a amee bis bu ñu nee laaj wéré di wéré dig dee nga xam ne wéré digi moom moom xam na ne du jóg ñi koy ragal xam nañ ne du wér ragal mooy faj léeg-léeg weñ ñi ne lam ci gémmiñam gi du ko mën a dàq léeg-léeg ñu indi ko lam gënoon a bëgg mu gën koo bañ léeg-léeg ñu indi ko kam gënoon a bëgg koo ko gën a soof ci moom léeg-léeg ñu yóbbu ko fu mu gënoon a bëgg muy fa seetlu guy foo xam ne lay upp ngay upp mu ne nañ ma génne fii mu ne nañ ko génne fii wootaam yi dafa dem gaare woon léeg-léeg mu génne benn léeg-léeg mu maye benn gis nga bis gu ruu garotee duñ tànn ba sa gën ñu di ko ca dugal yii ñu dugal ñépp ca ñu koy dugal yam doon war ñeneen war ca topp ci moom luñ cay man buñ ñëwee dañuy taxaw fële fakk fakk seeni bakkan bañ pënd bi laal leen xamuñ ñi koy defar ñum doon ñenn rek lay doon ñoo xam ne ñooy tase rek waaye seen yoon dutu nekk ci moom ndax dee na nekkatut mu ne fa cundum tàmbalee layoo nag jëmale yowmal qiyaama loo jubli woon ci nàngam loo jubli woon ci nàngam laaj yu dul jeex yoo xam ne yi dana fa xaar aadama ak awa ak ñi ñëw gannaawam ñépp mu wut ay tontu du ko am ndax tontu la ma nga fa kanam suñu borom bind na ko ba noppi wàññi ko daa jot te ceeg gi gëdd yi ci alal kese kese ak ak pal kese kese alal moom nit ki mën naa bañ a xam kañ la kañ lay jeex waaye ak pal ku ne xam na ne li ñu la fal ba sàngam wax sàngam lay jeex moom doo ko weesu te ngaa bàyyi xel lu may waxee waa koñ ba lu may waxee waa koñ ba ginnaaw say bokk ngi ci réew mi seeni bokk nekk fi rik nañu fexe ba ba ñu rusul suñuy bokk ñu dañu ko xool naan diw mooy fi defoon nangam ak nangam te muy dëgg yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin